أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ci école boo xam ne moo ngi ubbi ñun ñëpp wala lu ëpp ci ñun ñu jël sunuy doom jubal ci école yi pour ñu jàng waaye pour ñu yaru waaye xam ngeen ne yar liggéey la boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala daka gàll ci loosu képp koo xam ne ab way jur nga sunu borom soññ la ñaax la ci doom ji mu la jox nga war ko teg ci yoon war ko yar waaye war koo jàngal nga fexe ba comportement moom xale bi baax waaye naka la ñuy def ba doom yooyu wala xale yooyu yàlla teg ci sunu loos naka la ñuy def ba xale yooyu baax ni doomu aadama yenn saa yi di amee doom bëgg mu suivre benn mbir masalan yenn saa yi nga gis ko am doom bëgg mu nekk footballeur da koy jël yóbbu école football ki bëgg doomam nekk mbër da koy jël yóbbu école lutte ki bëgg doomam nekk nangam da koy jël yóbbu ko foofu pour mu am fa formation ci loola waaye ki am doom bëgg mu nekk jullit bëgg mu baax bëgg mu yaru kooku it dafa am yàlla lum la sant ci programme booy tëralal xale bi pour mu mën a baax yooyu li ci njëkk ci yoo koy moytandikuloo pour mu mën a baax ëllëg bu dajeeg boroomam at tahzir min at tashabbuhi wa taqlid mooy boo amee doom bokk na ci li nga ko war a njëkk a moytandikuloo pour mu baax mooy nga fexe ba bu mu nuroo bu mu nuru nuru lu jigéen waaye bu mu nekk toppandookat xoolal tey ci jamono bi ñuy dund da ngay dajeek ay xale yu góor yu takki ay lamaki seen létt bënn seeni nopp nga dajeek ay xale yu jigéen yoo xam ne ña nga soli tubéy dóor ay check down sol ay yére góor ñenn saa yi sax da nga ciy gis xale bu jigéen bu wat ab jullit boo xam ne gëm na yàlla gëm na sayduna muhammad mooy royukaayam su amee doom dafa war a téye ci loxo bi daf ko war a tàggat daf ko war a wommat ba xale boobu du màgg di col colinu jigéen bu dee xale bu góor la bu dee xale bu jigéen la du màgg di col colinu góor olof yi dañoo wax ne jubanti garab ca ba muy tooy li tax tey ñii kenn mënu leen a jubanti mooy ba ñu nekkee ndaw lañ leen tàggatul woon ci loolu lislaam day tere góor gu nuru nurulu jigéen wala jigéen joo xam ne da ngaa nuru nurulu góor loolu lislaam daf ñu koy tere mbokk yi ñu war koo xam ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun ne soo amee doom doom jooju danga ko war a tàggat ba bu dee góor la doo ko fekk mukk muy nuru nuru lu jigéen bu dee jigéen la doo ko fekk mukk muy nuru nuru lu góor loolu mooy tomb bu njëkk ñaareel adamul istigraq fi tanaumi boo amee doom doo ko tàmmal lix doo ko tàmmal lu neex doo ko tàmmal xaalis doo ko tàmmal lekk lu neex naan lu neex déedéet ndax àdduna day neex suba day naqari léeg-léeg sax nga ayor mu ne la baay wala mu ne la yaay nga ne ko déedéet danga koy tàmmal loo xam ne diggante ñaari mbir yi nga digg doomu ci tey xool ngeen ñi tàmmaloon seen doom démb ay lix tey xale yu jigéen yooyu yëpp dañuy taxawaalu ci mbedd yi kenn mënu leen téye ndax dañoo tàmm nekk ci lu neex tey seeni baay retraité nañ ñii màgget nañ ñii dee nañ ñii amatuñu ñooñu ñu tàmmaloon loolu du ñu toog parce que loolu lañ tàmmoon dañ koy uti bu dee xale yu góor ya genn wàll gi yëpp tey ay agresseur lañ ay sàcc lañ ay nangam lañ ay nangam lañ ah lu tax ndax seeni baay ñoo leen tàmmaloon loolu gisatuñ leen tey lan la ci beneen monde la ñuy nekk doom boroom xam-xam bi nee na boo amee doom da nga koy def weñ gu ñuul bu màggee nekk or bi mu nekkee xale da nga koy def weñ gu ñuul su màggee nekk or waaye xale bi bis boo ko defee or bu màggee nekk weñ gu ñuul mbokk yi doom nawle la doom lu cher la lan moo tax tey ñun xamuñu njëriñu doom c'est parce que dafa yomb ci ñun ngay gis kër goo xam ne borom kër gi am na ñaar fukki doom waaye ñi amul doom ñoom ñoo xam lan mooy njëriñu doom yow mi yàlla nat amoo doom yow yaa xam li ci doom waaye ki yàlla may ay ñaar fukk ay fanweer kër ba mu fees kooku yoonam du ci nekk da ngay gis xale yi di tamaamalu ci mbedd yi ba deux heures du matin gis naa benn jigéen boo xam ne romb na ma minuit di wër doomam mu ñëw fekk ci pot lampe bi mu tëdd di nelaw ñëpp dem foy ñëpp dem tëddi bàyyi foofu xale bi danoon foo ak ñoom muy nelaw foofu ba deux heures du matin kooku xamul njëriñu doom lan moo tax tey sunu dëkk bi mel nii mooy ñàkk orientation ñetteel mooy al ibtiaadu an illahwi al batil min al ghina wal musiq wan nazar ila al muharramat bokk na ci li tax tey xale yi mënuñoo yaru mooy sori loo wuñ leen caaxaanukaay yi caaxaanukaay yi sori loo wuñ ko xale yi sori loo wuñ xale yi musique sori loo wuñ xale yi ay woy soñu sori loo wuñuy xale yi xool lu araam xale boo xam ne 24 heures sur 24 moo ak baayam ñu ngi toog jàkkaarloog télé télé bi lu ci nekk lan moo nekk ci sunu télé yi programme télé yi lan la lu araam rek xale boo xam ne lu araam lay xool te baayam moo ko jiitu wala yaayam même bu dee théâtre même bu dee film même bu dee même bu dee lu araam lay xool musique lay seetaan ay fecc xale boobu bu buggee màgg ci environnement boobu su màggee lu muy def loolu mu doon xool moo ay wéy juróom loolu lay dem defi parce que danaan bu araamoon sama baay du ko xool soo bëggee yar sa doom da nga koy tere muy fréquenter milieu yu bon yi lépp loo xam ne caaxaan la ak fo da nga koy soriloo sa doom soriloo ko musique parce que day rey xol tey ku ko wax ci Sénégal nag ñu tam la dëmm ku ne musique baaxul ndax musique yi fépp la nekk lu tax parce que da ngay wax sax ñu ne ñu baax ñi la ñuy woy waaw sëriñ bi la ñuy woy bañ nañ ko sax ba ñun dañoo utal sëriñ yu mag yi ay woykat sëñ Touba utal nañ ko woykat Alaaji Maalik utal nañ ko woykat sëñ Fàllu utal nañ ko woykat moo tax ñun ñëpp a koy déglu koo ne araam na ñu ne ah yow waa ji di woy sëñ bi wala yonent bi lay woy fan lañ jàng ci alxuraan yàlla ne nañ woy yonent bi ñeenteel mooy ku am doom na nga ko tere muy tambambalu adamu sufuur wa tabarruj wal ixtilaat bi nisbati lil banaat surtout doom bu jigéen tey liñ gën a sàggane ci sunu réew mooy yar jigéen te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ko am ñetti doom yu jigéen nga yar leen ba ñu màgg nga jàngal leen nga may leen ay borom kër yonent bi nee na ñoom ñooy sa pakk ci safara yow doo dem safara saxaaba yi toogoon doon déglu ne ko ñaar nag mu ne ak ñaar ñaari doom yu jigéen nga yar leen jàngal leen may leen ay borom kër yonent bi nee na ñoom ñooy sa pakk ci safara ana ñun loolu tey Sénégal ci sunu doom yu jigéen yi ñuy bàyyi ñuy tambaambalu nekk ci mbedd yi def yaramu neen te kenn ci ñun du gis doomam def yaramu neen ba kanamam soppeeku wala doomam ñàkk sol yére bu baax ba mu ko ne dellul soliwaat wala mu toog ak moom sax bi ñaari minute xamal ko ne jullit bu jigéen du sol lii kan ci ñun moo koy def ñun sunu diine rek mooy vendredi bu nekk ñu gàddu suñuy siyaada dem jàkk wala toog ci kër gi bu ñu déggee noor du génn dem jàkk jeex na amma leneen li ci ginnaaw loolu suñu yoon nekk ci fàtte nañ ñu ëllëg yàlla daf ñuy taxawloo ci kanamam laaj ñu njaboot gi bu kenn ci ñun réere mbir ne nii ngay gàddoo sa sajaada nii nga gàddoo sa kurus di dem jàkk noonu la say doom waree nekk sa ginnaaw tànk boo teg mu teg beneen bi ci wetam ba ngeen egg ci jàkka ji loolu responsabilité la ci ñun kon nanu bàyyi xel bu baax doom bu jigéen kenn waru koo yar ci tambaambalu kenn waru koo yar ci bëgg xaalis kenn waru koo yar ci jaxasoo ay góor ak i jigéen borom xam-xam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na marru awlaadakum yar leen seeni doom na ngeen yar seen doom ci lan ci ñeenti mbir yar leen leen ci julli yar leen leen ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye na ngeen tàqale seen tëraay xale yooyu na ngeen tàqale seen tëraay bu ñu amee juróom-ñaari at xale bu góor bi waratul fanaan ci néegu xale yu jigéen yi fii nag da ngay gis grand buy fanaan ak yaayam te xale bu góor bu amee juróom-ñaari at waxuma yaayam waaye ñi bokk ñi mu bokkal ndeeg baay waratul ak ñoom bokk lal waratul ak ñoom bokk lal sunu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na wa farriqu baynahum fi lmadaaji taqale leen xale bu góor boobu ak xale yi jigéen yi ci tëruwaay yi ci tëraay yi loolu fan lañ ci toll beneen bi mooy adamul irtiyab an makanin fihi munkar awil lahu soo amee doom bépp place boo xam ne caaxaan moo fa nekk waroo ko autorisé wala nga ne ko demal wala nga yombalal ko ko tey di nga gis kuy ñëw ne la bàyyi sa soirée bi dama bëgg a dem nangam laa soxla nga gis ñu compté billet yi jox ko ëllëg ak si biir xale boobu foofu mu doon dem mu jële fa dara wala mu soppeeku fa wala mu mel fa neneen nga gis waa ji taxaw di wax fàtte ne kot moom moo ko yombalaloon muy dem ci barab yu bon yooyu moo ko yombalaloon xale bi dem na fa léegi ba fekk fa ñu bon mu bon ni ñoom nga gis woy jur bi taxaw di wax yal na ñu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi wahda wala nabudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibad allah هناك وسائل التي تساعدنا على تربية الأبناء أمنا في أي جمتكاي أي ميريو خامن داف نيي ديمالي بور ني يار سونو دوم بي تي نجك موي التربية بالعادة سو أمي دوم يار كو يارو عادة الإسلام أمنا فمو نانغو عادة واي أمنا عادة يمو داك ndax yoy baaxul waye amna yu mu nangu doom booy wax waxal ndànk gis ngeen suratu luqman waqsid fi masik waghdud min sawtik inna ankara al aswat la sawti lhamir gis nga luqman bi mu amee doom da ko yar yaru aada ci nu muy waxee ci nu muy doxee ci nu muy lekkee ci nu muy naane ci suy nuyoo loolu mooy yaru aada wax ak moom lii la nit di def lii nit du ko def ñun lii la ñu doon jàngal ñun lii la ñu doon wax na la sa baay yare woon nga yare ko sa doom allahu akbar ni la sa baay yare woon démb ba nga yaru koñ bi yëpp bëgg la nga màgg nekk baay tey lu tax jaarale woo foofu sa doom waaye tey ñun ñëpp suñuy baay dañ ñu yar yaru diine ñun ñëpp ñu màgg yar suñuy doom yaru nasaraan ak yahud wala ñu jox ay yahud ak ay nasaraan suñuy doom pour ñu yaral ñu ko ñaareel bi mooy at tarbiya bil qudwa bokk na ci jumtukaay yi yow nga utal xale bi royukaay xam ngeen xale dafa gaaw bëgg toppandoo fexeel sa doom toppandoo la moo gën muy toppandoo ay mbër di watu comme ñoom di toppandoo ay footballeur di toppandoo ay mannequin di toppandoo ay théâtre kat ci nu muy waxee ci nu muy doxee ci ci ci fexeel yow nga nekk sa royukaayu doom sa doom mel bëgg a mel ni yow loolu nag liggéey la ci sa bopp ndax faaqidu shay laa yutihi ku amul du maye ku amul doo maye yow bu fekkee ne baaxoo sa doom du la su lay roy rek ci lu bon la lay royee olof yi arab yi dañuy wax benn wax ne isa kaana rabbul bayt bi duf fi daarib su dee borom kër gi mooy tëgg sabar yi yaay ji di tàcc doom jooju mbokk yi lu muy def kon mbokki julit yi at tarbiya bil qudwa yaral sa doom nga nekk royukaayam mu lay roy wala nga royloo ko nit ñu baax ñi xoolal diw ni mu mel xoolal ni muy solo xoolal ni muy waxee xoolal xoolal jéemal mel ni moom nga royloo ko ñu baax ñi ñetteel at tarbiya bil mawiz nga yare ko waaraate di ko waar ni Luqman defoon am doom jël saaku dugub sotti ko ci digg bi ba saaku bi jal mu ne doom ji toogal ci kanam moom mu toog ñoom ñaar ñu jàkkaarloo mu koy waar par benn pepp lay jël su waxee wax ji ba mu daanu mu jël pepp bi teg fee balaa jal bi digg doom ji daal di daanu dee ndax waaraate bu dugg ci moom nit day waar doomam waaye mbokk yi ndax ku waaruwul di nga waaraate ndax ku jàngul di nga mën a gàgganti sa doom xale bi dafa dugg ci toilette bi ndeysaan di woy woy ba ñu wanoon woyal yonent bi taala al badru alayna mu ngi ci toilette bi toog papa ji bàyyi ba mu génn rek papa ji dóor ko ay pes jaawaleel daal di jaabante lex yi xale bi yuuxu yuuxu yu métti yaay ji daw génn lan la xale bi lan la def ba nga koy dóor mu ne ko mu nekk ci biir duus bi di jàng alquran yaay ji ne ko kii jàngul alquran tala albadru la doon way loolu du alquran mu ne ko man mem na fukki at yi yëpp tala albadru laay jullee su may julli tala albadru laay wax nga ni ma du alquran doo bàyyi li ngay wax saar boobu wàcc keroog ba yonent bi di dugg madina moom la saar bi wàcc waa madina di ko teeroo nga ni ma du alquran allahu akbar allahu akbar saar boobu ma nga wàcc ca Medine moom lañ doon teeroo yonent bi nga naan ma du alquran man saa yu may julli moom laay jàng ndeysaan ndeysaan allahu akbar ndaw si sax moo tane jëkkër ji ndaw si ndax xam na ne xam na ne lii du alquran am naa sama rakk bu jigéen mi ngi ci benn dëkk ci dëkk fuuta yi dafa dem di jàngal jigéen ñi ndeysaan mu jàngal leen ayatul kursi yu waa dëkk ba góor ña daa dem ca borom dëkk ba sërif ba ne ko ki ñëw ci dëkk bi di jàngale alxuraan de am na lu mu wax bokkul ci ayatul kursi yu te ñun fii yow sa baay ak waa dëkk bi yëpp loolu lañ fi fekk ñu koy jàng moom mu ne loolu bokkul ci alxuraan bokkul ci ayatul kursi yu shérif bu woolu ko mu ñëw shérif bi ne ko yow da nga dégg naa yaa ngi jàngal jigéen ñi mu ne waaw jigéen ñi dëkk bi yëpp de maa leen di jàngal por ngoon mu ne ko ndax da nga leen jàngal loo xam ne bokkul ci alxuraan ñu ngi koy wax de mu ne ko lan la mu ne ko nee nañ ayatul kursi yu am na loo wax bokku ci mu ne waaw waaw maa ko wax de shérif bi ne ko loolu lan la mu ne ko allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli loolu bokkul ci ayatul kursi yu paay ñoom ne ko loolu dafa bokk ci ayatul kursi yu ndax bu ñu sëlmalee ba pare ci jàkka ji rek allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum moom la ñuy def téeméeri at ñu yaakaar ne léegi ci ayatul kursi yu la bokk ndeysaan yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko Sénégal dafa jar ñu dëpp diine dañ koy jàng diine kenn du ko làmbatu doo toog ba màgget rek jël sa kurus utali jàkk alquran yàlla bala muy wax yonent bi dara da ko ne iqra jàngal te pourtant nangu nañ jàng sunu àdduna lépp am amma sunu diine nag foofu lan làng foofu la mbir mi nekk sunu àdduna lépp mën nañ koo jàng kuñ fi yónnee léegi benn portable nangam wala benn tablette nangam même bu doon allemand léegi balaa ngoon nga mun koo manipuler léegi kuñ fi may oto weer léegi nga mun ko dawal léegi bépp élément bépp bagage buñ la indil xamoo ci dara léegi balaa weer nga mën ko yenn saa yi sax nga gis waa ji da koy mën ba trouver ci loo xam ne ki ko defaroon xamu ko ci waaye mbirum diine déedéet man kay mokkal naa Fatiha falaax ak naasi rek am naa lu ma jullee o dañuy koo juuldi kanko de o waawi Fatiha falaax ak naasi ko du ma juul data loolu mooy diine ndax loolu la yàlla waxoon yonent bi soo mokkalee Fatiha falaax ak naasi doy na xoola yonent bi ni mu toll yàlla ne ko waqul rabbi zidni alman foo toll waxal yàlla yokk ma xam-xam bokk diine ji dañ ci yokk diine ji da ngay yokk bis boo xëyee yokkul ci diine ji yokkul bis boo xëyee jëlal ab araf jëlal ab aaya jëlal ab hadis sa diine di yokk waaye rek inna wajadna abaana ala umma wa inna ala asaarim la muhtadin fekk nañ suñuy ndey ak suñuy baay ay jullit lañ rek ñun ay jullit lañ lool du diine nan góorgóorlu ci suñu bopp nañu yar suñuy doom doom nawle la ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf koy laaj waqifuhum innahum mas'uluun ëllëg yàlla dina la laaj yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran fexel leen seen njaboot fegal leen seen njaboot safara fegal leen seen bopp safara loolu leen yàlla wax allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين mbokk julit yi am na sunu benn mbokk julit boo xam ne dafa yëg tawat ci yaramam ñu bindal ko ay rajo yu mu war a def ak ay ordonnance yu mu war a jël mu waxoon ñu ko ñu ne buñ ñëwee ñu sàkk mbokk julit yi luñ ko dimbalee képp ku ko mën a dimbali ngir yàlla incha allah bu ñu paree nga indi ko ci biir jàkka ji nga jox ko mbokk yi ñu dajale ko jox ko yal na yàlla may ñu wér ñun ñëpp qumu ila salatikum yarhamukumullah